àddina booloo daal mooy doole quoi voilà. mais man dafa am ku ma xam nag ku la xam ku ma wax ne ma euh, monsieur Ndiaye biñ ko koy wax biñ ko tuddee noonu si la collagène am nag benn diir boo xamante nañ ko atteindre woon mystiquement moo taxoon kenn déggatu la nga fay carrément la fali ko nga dugg sa maamu xam nga yéen ceddoo ngeen sa maamu faal-faal yi ñoom euh, fële dem fële kajoor sangu kii waat affaire yi ba ñëwaat relancé waat quoi. waaw lu ma la mën a wax ah man de maa ngi ci giiru damel laa bokk. waaw waaw la man ah <laughs> waa kër Madior. mais ah? la non mën a wax. mooy gis nga euh, gis nga nattu nattu amul kum dul dal yàlla nag moo xam nattu ba lan la ak kañ lay jeex parce que nag lépp dafa am app de gis nga nit loo mu jeex. mais laaloon nañ la. waaw mais déggoo la wax dama la ne gis nga nit nit nit lépp lu ko dal rek ah lépp lu ko dal ci boppam da cay ànd. mais tamit gis nga nat boo ko boo ko tegoo euh, te jooyuwoo on ko euh, saalitoo yàlla mu ko teg foofa wala muy xool ba mu tegu fa dana la ko dindil maanaam nañu mooy ci gëm yàlla rek nañ ñooy parce que gis nga. dundee woon vingt ans de fay yooyu ñu la defoon noonu nga nekkoon ci souffrance boobu di ko dund. lan lan doon sant. te nga bàyyi affaire fay loolu loolu yàlla non yàlla moo ne suma parcours. il fallait ma ma ma ma dund loolu man pour man du ma ko jiiñ nit du ma ko jiiñ keneen dama naan gis nga yàlla moo ne il faut ma jaar fii ak fii ak fii pour àgg fële waaw man xam nga am na détail yoo xam ne du ma dugg. mais wax man ak yow yooyu gaay lañ. <laughs> waaw ma ne bi nag kenn du xam lépp wax lépp déggoo ko ci barama dafa ne. dafa dérangé woon ba tax mu atteindre la mystiquement. ma ne ko ci barama daf ne fu jàmm yendu. am na lu ñu fa waxul te nag euh, euh, am na loo xam ne daal jar sa wax daal gis nga àddina moom euh, li am solo rek mooy yow na fexe ba boo jógee A jëm Z nga àgg rek waaye fa ngay jaar ak la ngay daj mais ma yow yonent yi waxaaba yi héros yi ñoom lu ñu daj du ma ko daj te atteindre nañ seen biir te it bàyyi nañ fi wéy bu rafet. te loolu moo am solo man loolu loolu moom moo ma loolu moo may yëngal waaw loolu moo motiver loolu laay sentir te yëpp mooy sama objectif mooy ma liggéey fi loo xam ne moo fi jógee sama ginnaaw ba nag te ah maa ngi ci nag xëj na nag xaajuma atteindre li ma bëggoon di ñaan yàlla mu gën ma ci dimbale mais loolu moom moo am solo quoi nit ki nga liggéey sa àddina bu bu fi jógee ñu ne kii àddina am na njëriñ ñu am lu ñu lay fàttali ko donc euh, mais xam nga toog naan ma Samba wala ma Demba man du dugg ci yooyu daal. Ah. waaw. Ah, ah leen de naa la ko xam nga dañuy wax naan yaa fi sese tax a falu xam nga léeg-léeg nga am foo bëgg a toog mhm. fekk ku fa toog xam nga kooku moom mhm. ah yow bu la mënoon faagaagal pour nga bañ ñëw toog fa mu toog mhm. dana ko jéem bu dee ku gëmul yàlla nag parce que nag nit ki aussi da gëm ne. Euh, jamono jule ak la cay xew xew-xew yi aayul xamalu bon ñàkk xew waaw ñàkk xew bon mais xew-xew yi aayul yàlla nag am na ñu muy may ñoo xam ne bu ñu xewee doot ñu xewi yàlla nañ ko yàlla defal. am na yàlla tamit am na ñu muy may ñoo xam dañuy xew toogaat vingt ans ñu dës leen ñu jékki-jékki jugaat yoraat yoraat affaire bi daal fi ne nii moom yaa yor affaire bi moom macha allah mais nan nga <laughs> mag laa it lan nga la bëgg ne gis nga àddina. Euh, du du lépp la ñuy wax. et puis des fois aussi da ngay gas suul quoi. waaw parce que gis nga gis nga nit. looko ko yéene yéene lu bon. Hmm? bu yàlla antul du mën a nekk. te it euh, bépp ndo euh, maanaam ndogal bu am ci àddina. bépp natt bu am ci àddina dafa am ab nit gis nga nit mu ñëw rek ba pare liggéeyal. mu muñal liggéeyal làqul sa gannaaw borom parce que yàlla dañ ne boo ko dénkee sa lépp mu yoral la sa lépp te nag gis nga des fois benn gàllankoor dina la dal fekk loolu dafa gën ci yow man amaana xew googu su ma ci wéyoon te mosul dakk eh kon heure bii du ma fekk bu moo gën yu yureel de waxuma laa la wax nag junj doy na borom xel <laughs> ñeneen bi gisee au Sénégal ni ñu ni ñu jëlee mystique bi comme par exemple bu ñu gisee kenn ki def ñu dérange nañ ko jéem a euh, écarté tegee ko ne nan nga gisee ni ñu koy dundee surtout si milieu bi ñu nekk muy milieu showbiz donte am na si milieu yëpp mais ñun moo ñoo gën a fës parce que ñun la ñu ñu di gis. ah mais loolu loolu ñàkk gëm alaaxira la rek. ñàkk gëm alaaxira rek parce que gis nga àddina bi loo fi def lu ñaaw def ko fi lu bon tooñ ko fi sa borom wala nga tooñ ko fi sa morom alaaxira du jeex de gis nga foofu moom ay dóoram dañ lay dóor xolal muy dem ay millénaire ay centaine de milliers d'années jar ko àddina bii nga xam ne fii loo fi dund lu mu yàgg-yàgg cent la wala moins wala un peu plus jar ko nga di ko wecceeg loo xam ne l'éternité donc nit ñi nañu gëm àlaxira boo et puis ñu gëm ne sa en fait mais mais àddina bi euh, nit lu la ëppale ëppale ëppale mais ci benn la lay tëgg tëdd benn repas lay lekk bi biiram fees mu dël et donc yow di fi wut loo xam ne dafay jéggi dayo mais lu mu lay jëriñ parce que da dem bàyyi ko fi booy ñëw doo indi dara booy dem doo yóbbu dara mais nit ñi defaa nag dañ koy faral di fàtte te gis nga fàtte googu mooy indi ay njuumte yu bari si àddina mais mais nañu gëm yàlla gëm suñu bopp gëm ne ni ku ne amoo ñetti biir amoo fukki biir amoo téeméeri biir yow tey jii ku la joxoon hamburger boo ko lekkee balaa ngay lekkaat xaaraat beneen repas kon boog ay milliards yooyu dajale ci lal ko ci mbugal doomu aadama def ko lu bon def ko lu ñaaw yàq dundam ah boo ko defee ëllëg buñ la koy fayeeku moom yii noo fay boobu day metti parce que nee nañu éternité kenn du ko wecci ak benn benn benn sa <laughs>